والقلم وما يسطرون soxna Diop bàyyi ko Touba di borom xam-xam di jàngalekatu alxuraan soxna si concours bi ren eh, dugal nañ ci jigéen ñi muy participation bu ama am solo ana ban gis-gis nga ci am par rapport ak daaw ak daawaati géej bi nga xam ne jigéen ñi daan nañ bokk mee pas ak niñ bokkee ren ana ban yëg-yëg nga ci am. baarakallaahu fiik bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah waa jërëjëf Oustaz ci laaj bi am solo boobu maanaam concours bi euh, démarré na ñi ngi ci ñi ngi gis feuille yi bëri na lool macha allah jigéen ñi nag wax dëgg yàlla gàcce ngalaama ñi ngi gën a participer ñuy indi seen participation bu baax a baax par rapport que daaw ak daaw jéeg ndax yàlla dogal na daaw ak daaw jéeg yëpp ay quelques jigéen lañu wax waaye tey nag fa tabarakallahu lim bi yokk loolu it wax dëgg yàlla sant yàlla la ak jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci ba am nañ ci ñoo xamante ne yeewaat nañ leen ci ndax am na ci ñoo xamante ne maanaam xamuñu ko woon am ñoo xam ne yëguñu ko woon waaye wax dëgg yàlla ci njiital soxna maam Awa Dem jéego yi ñu dox toppaat ko daara yi di ci e, génnewaat jigéen ñi di leen ci gën a ñaaxaat wax dëgg yàlla dimbale na leen ba ñu bëri gën cee yeewu ba participation bi gën a bari wax dëgg yàlla. jërëjëf soxna si ku wax concours wax e, nit mën na nekk góor mën na nekk jigéen concours yi bu ñu ko daan njëkk bu ñu ko daan gis ci góor ñi lañ ko daan gën a yaakaare e, jigéen ñi ci lañ bokk an lan moo tax ñu boole leen ci. seen participation nekk participation bu significative. macha allah loolu moom wax dëgg yàlla laaj bu am solo la ndax jigéen ñi li tax ñu boole leen ci day lu jaadu te war ndax ca azal la woon ndax amul benn jéego boo xamante ne des na ko seqi mu jëm fu am njariñ wala fu baax wala luy continuer te jigéen bokkute muy lum mën a doon rekk rawatina nag li nga xam ne mooy alxuraanul karim karim boo seetee cosaanam keroog ba mu njëkk njëkkee wàcce Seydina am sallallahu alayhi wa bi ko ko Jibril joxee ka ca njëkk mooy Khadija Khadija ci moom moo njëkk a maintenir alxuraan ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee xaalul ira yeneen eh, Seydina Jibril jàngal ko iqra bi mu ñëwee ci néeg Sayda Xadija la yonent bi tëdd di làqatu di muuru fala saar wu ñuy wax yaa ayyuhal mudassir wàcce yaa ayyuhal muzammil la wàcce loolu lépp ci kanamu Xadija fekk boobu kenn yëgagul alxuraan ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bu ñu delluwaatee jox jigéen cër bi ci alxuraan dafa mel ne dañoo delloo ndaa bàtt ba ca ndaa la jigéen yi nag gàcce ngalaama ci jamono booba laay waxee waaye bu dee jamono bii nga xamante ne nag boo jéggee sa tànk daal di seq ñaari jéego jot koo xamante ne danga naan mi ngi nii doomam a ngi nii sëtam a ngi nii mu def lu am solo ci alxuraan maam astawaalo boo gisee li mu def ci alxuraan da daan sol jàllaabe muuru kaa kaalawu toog di jàngale alxuraanul karim maanaam xam-xam bu xereñ rek ak yéeme gi nga xamante ne noonu la yéeme woon mu wàccee ko ci sayidatuna soxna jaariyatullah gis nga eh, misaalam moom it ba ci soxna yi nga xamante ne mooy njabootu xaadim rasul gi ku mel ne soxna Maymatul Maymunatul Kubra bi kaamilam boobee nga xamante ne moom moo moom moo dindi tikki tënki xoli cheikhul xadim ba radiallahu anhu ba ci suñ jamono jii alxuraan day gën a am doole ci jigéen ñi jërëjëf soxna si leeral yi am na solo lool xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo sa kàddu gu mujj ndax concours baa ngi dem mi ngi jël auteur xam nga ne ñi ngi waajal régionalisation bi déwén donte ne ren Matam la tàmbalee ana ban kàddu gu mujj ngay tàggatoo waaye tam ki sos lii itam ana ban kàddu nga ko yóbbante ak yàlla ñaanit yàlla bëril ñu mel ni moom ndax alxuraan ñu mel ni moom rek la soxla suñu borom nii rek la koy sàmmee boole kook nit ñu ko mën a dimbali tasaare ko ba ñëpp jot ci euh, soxna si. barakala waaw maanaam alaaji moom dañ koy bàyyi suñu borom moom mi nga xamante ne moom rek la visé tax muy jëf li muy jëf ndax moom mooy ñaanal boppam comme Seexul Xadim ndax ne woon waq di xawaa sii na daamoo fi xidmatin wa hablahum maaraamoo léegi moom li nga xamante ne moom lay doxale liggéeyam bi mooy day wéyal kàddug suñu borom gi dafay dëggal kàddug suñu borom gi nga xamante ne moom moo ne woon man maa wàccee alxuraan te man maa koy sàmm te sàmm bokk na ci sàmm googu nga xamante ne moom la ko suñu borom di sàmm du caagi ne suñu borom dañuy wàcc day wàcc di ñu ko téyal duñu ko jox ñuy téye bokk na ci taxawal bii mu taxawalaat concours bi nga xamante ne dafa nit delloowaat nit ñi ci bind ndax bind mooy liy sàmm téere bi ndax ñi fi jiitu woon bu ñu bindul woon tey duñ fi gis lu ñuy bind ba di ko toppaat kon alxuraan bind moo ko fi bàyyi loolu la alaaji sëriñ sekk di dëggalaat waxi ko borom bi di ko dekkalaat kon alxuraan ci bind lay mën a saxe ci bind lay mën a saxe kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu fayal ñu ko ngën ji fay te yàggal ko fi lool akuk njabootam ba li mu bëgg ci alxuraan ak li mu ci yéene suñu borom defal ko ko te jàppale mboolem sëriñ daara yi nga xamante ne ñi ngi ci daara yi di jàngale muy dolli leen yiir dolli leen sutura te jàppale it dong yi nga xamante ne ñoo bëgg a jàng suñu borom ubbil leen xolub jàng ba suñu borom ba ñu am li ñu bëgg bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa